Bonjour, Mesdames, Messieurs. Je m'en vais vous lire le communiqué numéro 58 de la situation de la pandémie covid au Sénégal. Ce mardi 28 avril 2020, le ministère de la Santé de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 873 tests réalisés, 87 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,4%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 86 contacts suivis par nos services. À ce il faut noter que le seul cas communautaire détecté à Sédhiou hier a déjà contaminé 25 de ses contacts. Un cas issu de la transmission communautaire identifiés à Niaritali. 12 patients hospitalisés ont et déclarés guéris. Deux cas graves sont pris en charge les services de de l'hôpital de Fan et de l'hôpital principal. L'état des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 823 cas dont 296 guéris, 9 décédés, 1 évacué et donc 517 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle, surtout au niveau des couches vulnérables telles que les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes avec comorbidité, c'est-à-dire souffrant de pathologies quelconques telles que le diabète, les problèmes tensionnels, l'insuffisance rénale aiguë, de même également que les maladies sanguines telles que la drépanocytose. Je vous remercie. maa ngi ñëw di leen di bëgg a jottali li nga xam ne moom la ñu am tey fii ci Sénégal ci mas mii ñuy tuddee Covid ci talaata tey bii ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril 2020 ministère de la santé et l'action sociale jot na résultat yii ma leen di bëgg a jox ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett test yi nga xam ne def nañ ko juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar dellu si ñu am doomu jàngoro ji. ci yooyu mun nañu wax ne juróom-ñetti fukk yi ak juróom-benn moom la ñuy wax contact moom la ñuy saytu di leen topp ci suñu bërëbu liggéeyukaay yi mun nañu rekk wax leen ne ki nga xamante ne moom moo am tey doomu jàngoro yu fii ci Sédhiou dem na ba wàll ñaar fukk ak juróom loolu mooy wane ne wàllante mbas mii ñuy wax Covid 19 da ko gaaw lool. am na benn boo xamante ne moom la wax cas communautaire mooy bi nga xamante ne kenn xamul ku ko ko wàll te damay fàttaliwaat ne moom mooy tax mbas mi di law nu mu gën a gaawee ñu ngi ko gis fii ci Dakar ci bërëb bi ñu naan ñaari tali ci malade yi nga xamante ñu ngi tëdd ci bërëbu fajukaay yi fukk ak ñaar ci ñoom bi ñu leen saytoo gis nañ ne amatuñu doomu jàngoro ji wër nañu ñaari cas grave ñu ngi tëdd ci service réanimation yi ci fi ñuy wax hôpital fan ak hôpital principal ñeneen ñi nga xamante ñoo fa des di malade seen wér-gu-yaram mu ngi am tan ci bésu tey bii dalee fa ba mbas mi Covid 19 duggee ci biir senegal ba léegi ñu ngi natt juróom-ñett fukk ak ñaar euh, ñaar fukk ak ñett yoo xamante ne dañu ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn. wër nañu juróom-ñeent faatu nañu benn delloo nañ ko ci dëkk bi nga xamante ne fa la jóge woon ci li des fii ñu ngi toll ci juróomi téeméer ak fukk ak juróom-ñaar yi nga xamante ne ñu ngi leen di faj ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi doolee di ñaax askan wi ngir ñu gën a farloo digle yi ngeen xamante ne jox leen leen ko loolu mooy tere mbas mi wal kenn du ko fi yoreeti ci digtal yooyu ñu ne nañ ci gën a seetlu di topp ñi nga xamante ne moom lañuy wax couche vulnérable maanaam xale yu ndaw yi suñu mag ñi nga xam ne ñoo nekk ak ñun jigéenu warul yi mais également ñuy gën di xool di saytu ñi nga xamante ne dañuy dox ak doomu jàngoro dañuy dox ak feebar feebar yooyu nag gën nañ cee gis ñi am jabet ñi nga xam ne dañoo am problème mu tension moo xam tension bi yéeg wala tension bi wàcc mais également ñi nga xam ne dañu am insuffisance rénale aiguë ba leen di yóbbu dialyse mais wax nañ tamit ne ni ñu gën a xool tamit ñi nga xamante ne dañoo ànd ak li ñuy wax feebar deret rawatina li ñuy wax drépanocytose maa ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam.